yaa booy ñu ngi lay leen di fay. Mm-hmm. bu baax waaw waaw maa ngi leen di fay bu wér waaw waaw. yaay tey am ndaw dafa am solo. Uh-huh. jël tey ay xaritam ay mbokkam ay famille. Uh-huh. def benn ndogu fii xam ne mooy dëkkam si Sibassor mu di ko tiitaroo fu ne ci àdduna bi. dëgg la parce que ñun ñi nga xamante ne bokkal nekkal Dakaaru Njaay sax. dëgg la am ndaw foo ko invité si télévision yi. wallaahi Sibassor lay tiitaroo. dëgg la si xale yi nga xamante ne tey bu bor si boo xamante ne pour nit ñi xamee Sibassor. dëgg la jëmm am ci la bokk tey. dëgg la dëgg la yaay booy tey lan ngay wax tey si am fii am tey. am am de mooy doom ji bëgg ndeyam. doom ji fonk ndeyam. doom ji yërëm ndeyam am bu tolloo Dakar balaa am jàmm yaay ci loo nekk yaay noo def ndax yaay feebaroo bu xësee ñëw tubaarkàlla macha allah yaay loo bëgg lu la manqué ma ne ko ndaw ba la dara manqué wu bëgg yaayam fonk yaayam respecté yaayam ba muy xale ba tey nii la mel ci man waaw ku ma xam rek am bëgg na la ku ma bëgg am bëgg na la ma di ko ñaanal nag moo xam li mu bëgg ci aar bi yal na ko ko yàlla defal barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yal na ko yàlla yokk barke El Hadj Ibrahima Niass ma yaakaar maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla yokk ko ba mu yëg ko wax dëgg yàlla gërëm naa ko sant naa ndax fonk na ma yërëm na ma bëgg na ma waaw bëggul ma manqué dara nag lu ne la may defal macha allah law la cat. sama dara manqué wul sama ravitaillement même habillement daf koy jënd defar ba mu baax na indi am daal dama koy ñaanal yàlla yokk ko waaw dëgg yàlla ci barka ngay yaayam muy ndaanaan muy ndaanaan waaw xëy na qualité xëy na mi nga dëkk moom doo xam mooy kan mais ñun ñi nga xam mooy kan mm. xam nañ valeur am si ñun fonk ko fonk tey am diggante moom nekk na ak moom ak famille nan la di nekk bi xanaa bëgg ñëpp rek ñëpp bëgg moo topp sama taaw waaye tubaarkàlla magam jooju gëmewu ko ndax daf ko fonk teg ko place fonk ay nijaayam mm-hmm. gisuma kum dul odd nag ci ñoom tubaarkàll am lekkul bàyyi kenn dëkk ba dëkk bi daj ku ne am tubaarkàll balaa ngaa yeggal mu teral la te loolu ci kër gi la ko njëkkee ci ay nijaayam ak ay tantaam ak ay yaayam ak bàjjen waaw dëgg yàlla ma di ko ci gërëm di ko sant waaw di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg jëm moo ko xam yàlla na ko fa yàlla yóbbu gis nga xale yi dëkk bi niñ ko bëggee waaw ku ci nekk ci ñoom tubaarkàll am dalay teral am xaarul nga ñaan ko xaarul dara yërëm na doomu aadama tubaarkàlla am na xol bu rafet xolam rafet na am daal dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat waaw fu mu bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggal barke Cheikh Naam Tidiane dëgg yàlla. diggante moom ak am mu am ku ne am ne Wally ku xanaa kontaan ci. ndax man midiyaam damaa bëgg Wally mm-hmm. waaye Wally tubaarkaal ni mu def sama doom ji gis naa ko may ñaan yal na yàlla yàggal seen ànd lépp lu mu def am nag am wax na ma Wally Seck Wally Seck dama koy ñaanal yal na sut baayam ju baax ja ay fant dese barke bi may dellu si balaa maa egg dara sax di ko jaale baayam ju baax ja ci àjjana ja yal na yàlla seral ya xam waaye Wally sekk bëgg na suma doom ji bëgg na am fonk na ko am na fu ko teg wax dëgg yàlla ma di ko ñaanal yal na yàlla yàggal seen ànd barkeel ko barke Cheikh naa Mati Diagne Chérif waaw. maa ngi koy gërëm de xale yi nag moom am naa sama sët boo xam ne bokk na ko noonu mun a Waly Seck. Waly Seck bu <laughs> Waly Seck.